dañoo far am liberté totale quoi vraiment tey moom amul couvre-feu bi foo xool mooy loolu ci guddi gi ñu ngi mel ne bëccëg yàlla na. waaw Médina ngi di neex waaw 30 minutes de récréation si couvre-feu bi dara lii.